Fuck your wife. Morreu agora. É bonito. Ficou só. É a melhor coisa. Aí tem aqui. Olha aqui, não Aí tem aqui na mochila. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Olha, pouco de bolo. Daí ele mata para ele. Felicidade no Guilherme. Mas sabe, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas eu faço um juro. Faço vale. Será que era o primeiro? Não, não. Eu acho que... i Yeah, yeah. man pour man les carottes sont déjà cuites li des rek moom mooy. ba ñu mitaan nee naa gars yi nañu yeesal njàpp yi. Uh-huh. bu ñëpp yeesal njàpp yi ñu demaat parce que l'équipe est prenable ah. waaw léegi nen yi ñu war a saraxe ndax yéen génn ngeen ci. mais yow ba nga saxlee saraxee tablette nen man foog naa ci laa bokk parce que yow mooy loolu man ak yow xam nañu. ay jaay ah, bi Sénégal Sénégal day gagné rek man mii dem jiw moo la toog. moo la toog donc la ñu changé. Ah, amul dara d'accord alors. ba match bi moom nice ko amuñu benn critique bu ñu ciy def amuñu benn. dara non sànq yaa ngi wax ne kii bi baaxul kii xaw ma

fait m'a match bi. là là machallah, je suis contente de la lii daal c'est une première. donc c'est une fierté à le Sénégal. Bah ndam rek. fait match bi ma confiance tranquille. premier 1-0. mais d'accord.